semaine yële passe dama la dégg ngeen di waxtaan ci combat Balla Gaye 2 ak Modou Lo seen deuxième combat. bu mu bi yaakaar naa ne am na ñaari mbëri koo ci alerté woon. combat boobu tey parce que nit ñu bëri combat ba nañ ko bëree am na ci ñoo xam ne comme li am na ñu ci mais am na ñu ci bëggul. ñaari mbëri dafa am koo ci waxaloon balaa combat bi alerté ko ci combat bi. muy Modou ak Balla. non d'abord rek def analyse ci combat bi. Mhm. parce que dama gis su ma déggee génne ci mbedd mi ak ci émission yi ak nit ñi may dégg. ñu naan Balla jeexal na. Euh, daxaar du saf ñaari yoon. <laughs> ak dafa feebar. ak Modou Lo Modou Lo mooy favori. presse bi ñëw fi comme ni nga ñëwul fii rek. waaw. Malal sax moo fi ñëwoon. Malal Junior Malal Junior. ñu koy nuyu di ko jaar daf ma woo insisté ma ko du ma wax ci làmb ji mënum xam nga ma daal suma doom la suma xarit la dara laa ko mën a lul dëgg ma jékki-jékki rek mu ñëw ak ay matériel ni ma wow yow sax nee nga ma doo wax mais man ma sama papa moom la dénk bi may jóge Ndar sama papa daf ne ma da ngeen defandoo stage premier degré ak deuxième degré football à Saint-Louis xaritam nga mhm. mu dénk ma la mhm. du ma la tàggu sax dama ñëw pour nga wax ma ci làmb ji puisque coow li dafa bëri. dafa bëri dëgg la xam nga loolu du ma ko mënal dara déedéet. mu ko Modou Mbaye samay doom la ñu. dëgg la li may bañal Bécaye sax ak di ko bañal euh, Golbert. Mhm. ñoom bu ñëwee dama leen koy nangul. dëgg la ndax ndax ndax li ma la wax. ay doom la ñu. mu laaj ma ci làmb ji man ko làmb ji man li ma ci jaaxal mooy Sénégal yëpp dañ ne Modou Lo dafay daan Balla. Mhm. ne man loolu gëwuma ko li tax gëwuma ko mooy d' abord bëri bu njëkk ba gis nga ni ko Balla daanee en moins d' une minute ou deux minutes maximum mhm. daf ko taxañ. bi yoon nag dëgg la Balla ci feebar la jógee ak défaite am na ñaari défaite mais bu leen fàttali feebar tamit bu fekkee am nga ay moyen boo fajoo da ngay wér te dem na France te ñu ko yóbbu xam naa leen muy bàyyi ak Aziz te ñooñu ndam dañ koy jënd dama leen xam jaral na leen bakken dama dama xam bu baax Aziz <laughs> ndax mission bi mu jëkk def ci rajo man man maa ko invité su defee daf koy wax ba léegi dëgg nga jaañ moom ma ko indil ni ma dama dama ko teg sa loxo dénk la ko pour nga jàppale ko dafay dugg ci làmb ji suma rakk la man maa ko njëkk defal émission rajo Aziz waaw en ville mhm. loolu moo ko yàgg na mhm. mais soog a ñëw jigé woon tamit écurie Fass ndax xaritu Moustapha la faraloon ko donc amoon nañu ay relation man ak moom mhm. ma xam ko fulla gi mu am ak fayda gi mu am bu demee ba engagé ci lu mel noonu il faut mu teg bàll ci yoon et puis ma am tamit beneen rak ak suma beneen xarit boo xam ni Simon la tudd commerçant la mi ngi nekk avenue Blaise Diagne supporteru Balla la nag moom dafa ma gis rek sopp ma def euh, ma papa mhm. di ma defal lu nekk nag ci lu baax waxtaan ak man wan ma fot di ma woon photo yi di ko Balla di envoyé ak affaire entraînement yi di ko waxtaan ak man en secret mhm. ni ma papa ma ne ko ah mu ne ma bëri bi bëri bu metti lay doon mais nag li naa dama lay li may yëgal ne la Balla préparé na ko sérieusement donc man élément yooyu ma gis. nga dajale waaw. te ñu ne ma bu ko wax kenn. waaw man ci élément yooyu laa defee jugement. ok man ci laa defee jugement. bi ma xoolee bal la. xamewu ma ko sax mooy bi ñuy envoyé photo seen téléphone yeeg. waaw waaw ak entraînement bi muy def. xamewu ma ko sax man na ko kii ball la mënu ma ball la man na ko kii du ball la mënu mu convaincre ma yenn saa yi ñu waxtaan mu paas ma bal la. ok. nga xam ne kon nii ñu ngi préparé combat bi sérieusement mhm. ma ni Malal Sénégal su matul ñu am ñu am ñu am surprise mun ma ban surprise ma ne ko que Balla nii ñu xeeb du ko ñuy xeeb d'abord dafa am jom gëm li muy def mhm. am gëm-gëm xam nga nit li muy wuti bu ci amee gëm-gëm mën na ko am mhm. même booy napp jën géej boo amee gëm-gëm mën nga jàpp mën nga jàpp jën ba pare xam ni muy bëreeg Modou te du ko may dara wute nag ñeneen ñi parce que ñeneen ñi dañuy respecté Modou ko respect boobu moom moo ko sut moo ko pour doole moo ko dàq bëre moo ko mën mhm. xam nga déjà rek loolu avantage bëri moom daf ko koy woon waaw du taxaw di calculer mhm. bu arbitre bi siffle day marché xam na ni moo ko sut mhm. bu nar a xeex ak moom Modou Lo am na moom avantage moo koy gën a touché loxo yi gën a jot mooy gën a te bind bi baax na Modou ko jaar fenn te mën na bëre mën na bëre donc man ci yooyu laa calculer woon ni leen quatre-vingt pour cent sénégalais yi yaakaar ne bëri bi dafay yomb il risque de se tromper hmm. parce que Balla c'est un élément extrêmement difficile même bu daanoo sax ci ni mu bëree la mais bu bëree yoon sax neexu la daan ndax dafa mat mbër xam nga mat mbër hmm. ba pare am gëm-gëm am fit hmm. dafa doon ay qualité te ñàkkul doole dëgg la parce que keroog bi mu bëri Yékini poids bi mu indi nga xam ni kon ñàkkul doole keroog bi mu bëri Tyson tamit gis nga bi mu indi donc dafa nekk élément boo xam ni dafa doy waar. ci man ci yooyu laa sukkandi pour yaakaar ci sama yaakaar ni mooy daan. moo tax ba mu daanee bettu ma bettu la am na solo loolu leer nañ macha allah léegi làmb ji fan yi ak coow li gars yi gis ne boobu ba tey wax na ne seen mag yi dañoo war a génn wax. Mm-hmm. si takkere génn wax. ba wax sax waxal population bi ñu bëgg taxawee pour que état bi jéem a seet na mu def pour ubbile saison bi ñu bëri parce que nañ am na ñoo xam ne ñu ngi dee ci gaal yi te ay mbër lañ daan bëri mbapat ñu ngi amatuñu mbappat léegi ñu nga duggaale ñuy dene surtout côté Mbour bi loolu yow ban yëg-yëg nga ci am ak ban gis-gis nga ci am moo gis-gis moo am mooy état bi dañu la war a dégg ndax sport à travers le monde dañu tëjoon lépp mm-hmm. mais sportif yi dañu jóg ne leen yéen li ngeen di tëj sunu liggéey ngeen tëj di continuer seen liggéey parce état bi ñu ngi liggéey bu euh, président de la république mi ngi liggéey. waaw ah, loolu am na moom. école yaa ngi tijji. waaw marché yi yow yaa ngi nii yéen di liggéey. <laughs> waaw te ñoom liggéeyuñu. injustice sociale boobu ñoom la ñuy. dénoncer. ok te état bi normalement war na am oreille attentive déglu loolu pour jàpp leen ci puisque nit mën na ko xañ liggéeyam. déedéet puisque liggéey yëfu gor la. Mhm. te it bu ñu toggee pendant dix mois liggéeyuñu kon impacté na leen. Mhm. te joxuñu leen dara en retour. Mhm. en Europe. sport yi nga xam ne dañ ko arrêté yëpp gouvernement yi dañ jël bu bari jox leen ko États-Unis basket bi dañ ko def. waaw France football bi dañ ko def. Mm-hmm. Angleterre dañ ko def Allemagne dañ ko def. dëgg la moyens yi ñu am ñun amuñu ko. Mm-hmm. waaye nañ yëkkati dara loo xam ne dañ koy teg ci seen loxo te it jàppale leen pour làmb ji tëjee parce que gis nga football bi ko tëjee. Mm-hmm. président fédération bi. nekk fi woon sax waaw. fa mu toll. Uh-huh. la def appel ni leen lii ànduma ci te buñ ko defee day rey football bi. acteurs yëpp jóg. président de club yeeg. joueurs yeeg ñëpp ku ci nekk wax. ñoom loolu def nañ ko. Mhm. kon mun cër bi ñuy jox yeneen sportif yi nañ leen ko jox parce que ci dëkk bi lañ bokk. Mhm. te it am na nag lu ñu fiy indi. ak loo xam ni tamit dina fi téye xale yi. Mhm. ndax làmb ji li muy li muy def ci sport bi du ma ne benn sport peut-être dina ko def plus mais en tout cas li ñuy def si sérieux chaque dimanche dinañ bëri loolu mat cinquante ba cent personnes. te ku ci nekk booy dem di nga am loo yóbbu sa kër. pour euh, suturaal sa bopp ak say waajur. say waajur donc je crois que loolu état bi def ci war a jóg. jéem a trouver ay solution te defe naa it ñi ngi ci. bu mhm. état du affaire bu ndaw. déedéet te it bu ñu créer ministère de sport. Mhm. ce cas yu mel nii bu amee ñu réfléchir si. Mhm. du bu rek bu jàmm amee. situation difficile moo tax ñu créer yenn postes yi. te ministre bi am na volonté. te xam naa ni normalement appel bi gis na ko dégg na ko. te it nañ ci trouver solution. ndax mënuñoo bàyyi sport professionnel bu ci mel ni football ak basket ak yooyu di ubbi. mu mois de janvier. te ñoom jusqu'à présent waxuñu leen dara lu leer. dañ trouver ay solution toog waxtaan ak ñoom jëm a seet ñii kat depuis di mois ñu ngi chômé waaw il est temps qu'il travaille pour ñu jëm leen jàppale ci réew mi lañ bokk te réew boo ci bokkee doo jàppale ñi bàyyi ñii ñëpp ngay jàppale mhm. te xalaat naa ne tamit ki nga xam ne dafa jiite réew mi xale la du mag déedéet bu magee mbir yi sax bariwul mhm. kon bon moom ci boppam war na seet ak ñi nga xam ne ñoo bokk ci état bi di ko doxal ak gouvernement bi mhm. rapidement ñu trouver ay solution pour jàppale leen pour ñu tamit dellu ci li nga xam ne ci la ñuy suturloo mhm. ndax xañ leen ko tamit du yoon àq la mhm. donc je crois que l'État est interpellé mhm. ñoom li ñu mën def nañ ko ñëpp ñëw sax mënul nekk déedéet ñëpp mënuñoo wax mais les principaux ñëw nañu booy ñaa Niang li mu def ak ñii mu woow ak ña fa taxaw ay mbër lañu donc ñooñu seen kaddu dañ ko war a jël au même titre que kaddu ñu nekk roi des arènes ak ñu nekk ci kaw. Mhm. ndax mbër mbër la rek. mbër mbër la waaw. daanante fi kese ñii nekk ci kaw ëllëg. Mhm. mën nañ nekk ci suuf. bien sûr day tourné. Mhm. li tax tournée bi bariwul sax mooy combat yee bëriwul. bëriwul ñu lu bëriwul mais bu ñu doon bëree. lu mat trois fois quatre fois. cinq fois. ci année bi. kon soo mooy sox bul bi day tourné. day tourné oui mais bëri une fois une année ou deux fois une une fois deux ans. loolu moo tax. roi des arènes ak drapeau yi sax nit ñi di ko contesté mhm. parce que ku bëri benn yoon mhm. jël drapeau bi bu yàgg ba du noonu mhm. bu yàgg ba boo ko jëlee dimanche dimanche bi si topp da ngay bëri jëlaat ko da ngay bëri si bi si da ngay bëri bi ko joxee ba décoré la dimanche bi si topp da ngay bëri ñoo andi ko tegaat ku ñu bëri au moins di nga bëri chaque mois benn yoon xëy na loolu mënul am ndax cachet yi mais au moins ñu bëri trois fois même dans l'année ou deux fois donc je crois que appel bi ñu def te ñoom ñëpp def nañ ko. ñi ñëw ak ñi ñëwul. ñoom ñëpp jooytu nañ jàmbat nañ ko. kon defe naa ni fu mu nekk nag il est temps leen pour jéem a seet naka lañ leen di jàppale pour làmb ji tëji parce que làmb a tëji. dafay doy waar. gis nga li nga wax sànq ci xale yi dem. waaw vraiment ndax ñoom tamit seen gagne-pain la woon. surtout ay mbuura ay ay fatigue ak yooyu nga xam ni dañuy napp ba pare boolu ko bëri ñooñu li ñu bëgg bu ko amul ñu wuti beneen pexe te pexe yi muy li ñu def mm. bien que du yoon sax du yoon mais nit dina def loo xam ne neexu mais lu koy waral situation moo koy waral je crois que l'état est interpellé mm-hmm. war nañ bàyyi xel ci loolu mm-hmm. waxtaan seen biir mm-hmm. seet naka la ñuy def bu ubbi làmb ji pour permettre nit ñi tamit ñu reprendre seen liggéey